lu bëri jóge na ci ñun tamit parce que nit moom lu laal ci yow rek laal fu sore sori man bi may laata xamee doomu Médina la bi ma yëgee ni nit la kese la am problème ma yëg ni tamit sénégalais la ma amati problème bi ma delloo yëg nag ni doom la ci ñi ma yilif la Médina boobu nag j'étais vraiment à muy lu metti loolu ndax ku mu daloon sa jabar wala sa doom di nga yëg ni mu méttee ci xol te doomu aadama ñu ni doomu aadamaa ko def lâcheté la moo tax ñuy ñaan état nañu gaaw jàpp ñooñu def yoon te tamit li ci yoon wax wala li ci charia wax rek ñu doxale noonu may woo waa Médina yëpp woo autorité yëpp woo parti yëpp woo góor ñeeg jigéen ñi ñu xam ne ñenn ci ñun di ay doomu Médina ñoo wàññeeku suba man mi nga xam ni nag man may teewal Médina ak ñi ñi ma àndal ñëpp ci Médina délégué de quartier woo naa ñëpp suba 14h bu ñu jullee tisbaar pare ci jàkk sanc ba ñu taxaw ko ànd ak moom ci almeer yi incha allah ak waa état bi yëpp di leen dellu masawu waat bu baax a baax.